ak mboolem njaboot gi topp ci ginnaaw gépp sëriñ bi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bis bi nga xam ne moom ak yéen ñoo ko bokk wax ji du gudd loolu waaye faaw ñu seere ci ndax sëriñ Moustapha Fall bari ñoo dugg ci waxtaan wi rek ñu fàttaliku Cheikh Sidi Moukhtar ñaan suñ bon dolli ay leer tataasu ci barkeem ndax dëgg ni fii daaw ci ndigalam lañ màggale màggal gi ci teewaay ak fàttaliku kon bu suñ borom dogalee mu bàyyi ko fi tam des ci xel yépp faw ñu fàttaliku ko ñaan suñu borom dolli ay leeram te liggéey bi mu liggéeyee sëriñ Touba suñu borom fay ko ko ndax ñëpp xaj nañ ni Serigne Mourtada wax fàttali ko ci discours Cheikh Mamadou Moustapha muy lu kiimaane loo xam ne dafa mel ne sëriñ bi tey la ko waxoon ñu war cee jàngat jàngat yu rëy yoo xam ne doo sëkk lii baraan ngay wax ci turu sëriñ Abdou Lahad kan mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi ci cant ci dëkk bi jëmale ko ci ñi fi teewal nguur gi ci njiital professeur mam Thiaw Dieng bi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall ak kàddu yi mu wax ci dëkk bi yóbbaale na lépp li ci mujj nag mooy suñu kilifa di Cheikh Mamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdou Khadir nga xam ne kàddu yi mu fi wax daanaka jërtoon doon waat dara ndax wax ju leer la joo ne ku ko dégg dégg ko ci sa biir xol ndax li sëriñ bi daa wax rek wax bu jugee ci xol dem ci xol ca xol lay àgg waaye bu jugee ci xol bu jugee ci xol jaar ci làmm rek ci day jaar ci nopp yi jàll moom nag yàlla defal na ko tawfeex ku dégg li muy wax xam ne li muy wax gëm na ko tamit koy dund moo tax fu mu waxee mu àgg ci xol yi di nuyu itam Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi Moussa mi nga xam ne moo fi xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak mboolem rakkam bi fi teewal ak mboolem njabootu Serigne Touba gi teew ci jotaay bi yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha nag. faw ñu fàttaliku ci moom tuuti fàttaliku ci tuuti ci Serigne Touba ndax bis bii day bis boo xam ne moom moo ko woote woon di ko wooteel Serigne kon waxtaane mënu leen génn ñoom ñaar muy jëmm joo xam ne itam dafa marke histoire lool ndax yoonu murit tey bu doonoon tabax Serigne Touba moo ko ñaan ba suñ borom defal ko ko mu wax ni mu bëgg mel leeral ko ko boppam ne ko yoon wi de noppi naa ci lépp lu ma ci war dafa def naa ko maa ngi mel ne rab bi nga xam ne dafa defar ay sërëm ba mu jëkk mu def ko ci barab fu àdduna na ak fu jamono toll rek ma génne ci wenn son kon moom Serigne Touba dafa teel a wax ak moom xamal ko li mu bëgg bu doonoonu tabax nag marista wax ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko fond mu nekkoon jëmm ju jàmbaare sëriñ Tuuba suñ borom defal ko taw féex moo rakkab yu tëdd Cheikh Mouhamadou fadi ndax ñoom ñaar li ñuy wax al omari al omaray ni mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou fadi sëriñ Tuuba loolu de caa doon rasulullah li ñuy wax ramziyatu zamani wal makani wala zarfu chamani wal makani ñoom ñaar foo tudde kii sax faaw nga tudd ko jërës ndax seen mbir dafa lëkkalu Cheikh Mouhamadou Bara xam nañ moom Cheikh Mouhamadou Bachir nii ko Serigne Moustapha waxe moo doon a jëwriñu mboolem njabootu Serigne Touba gépp itam kenn ku ci ne cër bam la waroon a sédd ndax li tàmbalee ci Serigne Abdoulaye jëm suuf ñëpp manistaa wax ne moo leen toqi moo leen yar ñëppit moo leen samp kon moom moo fond yoon yi liñ ci fàttali nag mooy li ci jiitu mooy bi ko sëriñ bi di dalal fii suñ ginnaaw ci kër sëriñ Souhaïbou ci Daaru Rahman moom ak Cheikh Mouhamadou Fadil ak sëriñ Mor Mbacke golo gelaw nga sëriñ bi da leen wax ne li ma leen ci sas de ndax lii seenu liggéey mooy alxuraan mooy noonu ngay jàng waaye gaaw a xam bi ak bañ a fàtte moom seen yoon niw ci kon noo leen sëriñ bi tàmbalee tërbiyee leen jàngal leen boole leen ak rakkam ji Cheikh Ibra Fati Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadi lépp lu ab taal bi def def nañ daana wax ne gor naa gayet ràbb nam per lépp lu ñuy def xaddam nekk moo moom Mamadou Fari bind na Sëñ Tuubaa téeméer ñeent fukki te kayit bu ci ne dañ ko daa boole ak nekk ak nit ñi ba mu nekkee ca gànnaar foofu xam ngeen ne metti woon na lool ndax condition ya fa woon waaye ci njàmbaar ga ak bëgg positif la yëmut rek ci ne doomi sëriñ bi la waaye dafa futti ku laxasaayu mel na taalibe yi yor melo taalibe yi ba njañ li ngay dégg ñu di ko tuddi sax ba turu ndoom yu bari ñu la di wooyee njañ loolu ko indi ba mu mujj Sëriñ Tuubaa woo ko bu ndikk mu ne ko ana lii loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg doon taalibe mu ne ko yow jaamu yàlla ci sunna lañ la tànn kon boobu Sëriñ Tuubaa koy waajal noonu la Sëriñ Tuubaa nekkee moom ca ci yéen ci tërbiyew bi lépp lu taalibe def mu di ko def loolaa waral kon moom Sëriñ Tuubaa da koo waajal bu yàgg ndax bindoon na ne Serigne Touba bindoon na ne na nga def Cheikh Mouhamadou Moustapha mbindum loo xam ne teg naa ci sama bët na nga def Cheikh Mouhamadou Moustapha muy kilifa képp kum jamono teel ci kaw suuf kon Serigne Touba wàññiwoon na ko bu yàgg moom ci boppam bi Serigne bi di bëgg ñibbi borom ñibbi si Touba booba ba mu nekkee ca ñaaxeen loolu ñëpp dëgg toog naa mbooloo ba caag moo ne ñokkee jug ànd ak Serigne Mor jàndam dox ay jéego yu néew ci biir tookoor ba ne li daa wax ak man de wax naa ak man te ay waxam dawul dañ nee na ma boo xasee ba am ñeent fukki at doo mate kilifa te loolu jaaxal na loolu boo fekkee ne Serigne baa ngi ci waajtaay kon moom Serigne Touba da ko waajal lu yàgg. bi fi sëriñ Touba ñibbisee Touba it ñépp xam nañ ak njàmbaar ndax li ëpp solo mooy jumaay tubaa ji nga xam ne moo jiitoon ca naali sëriñ Touba la ci Cheikh Mouhamadou Moustapha def ñépp xam nañu ko ndax bi ko sëriñ bi wootee wax na ko ne na joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett taalibe yépp dajale ko ba motoon juróom million ci yooyu jamono la ca xewoon ñépp xam nañ ko bañ mayoon serigne bi autorisation dir bu gàtt touba bi delu ci wat fi ci Touba dajale mbolo mépp ci kanamu Cheikh Mamadou mustafa xotti xotti autorisation bi ngir bako ko ganam ko ne waxi juma ma bëggatuma ko dégg Cheikh sépp jaxle ken xamul noy def waye suñ Mamadou mustafa ca dal ga lii suñ Moustapha seere léegi mu ne tekki ba touba bi dem mu wax ne numay def am kum waxal ba amat autorisation bi lay xalat mu dem ci tuba bi wax ak ñom tuba bi wax ne autorisation man nañ ko ko may xañ ko ko ni ngi koy may xañ ko ko it mooy autorisation aw kayit la waye nak nañ ci tek condition yo xam du ko mën matal muy condition yu métti lu gudd la waye lu tuuti la ci tek bokk ni ci condition ya dañ ko wax ne ko saxaar yi tubaab yi doon def mooy train yi ci ëpp seen projet àgg na ci muy Louga Linguère ak ngin gi neew ak xaay kon ouvrier yi ñu doon liggéeyal yóbbu nañ leen Madagascar kon li ci des mooy faw nga wut sa ouvrier bopp yoo xam ne yaa leen di tànn te daañu ma junne ak juróomi téeméer te duñ doon ay nit ñoo xam ne nit ñu yooyu la ñu doon ndax liggéeyu saxaar yomb ne ko itam fépp foo xam ne jaar na fa mbooloo mu koy liggéey lu ñu fa yàq yaa koy fay yaa koy garanti barab bu mu jaar te ñooñu anduñ ci ndax ci ay tool lay jaar. la leen di indemniser yaa koy joxe te liggéey bi itam contrat bi juróom-ñaari at lay doon bu àggu ci diggante bi mboolem loo loo ci defañ ci xaalis da koy perte ndax dañoo am yeneen liggéey Cheikh Mamadou Moustapha ca fit wa ak njàmbaar ba ndonk lépp ba mu dellusee nit ñi am ca jaaxle muy leen lii dellu yomb la ndax liggéey bii ma Sëriñ Tuubaa sant de bu fekkoon te ne damay soli ji soldaat دور كارف دنا كارف موتة بموتة نيبورة جي ليسي مصطفى شيخ محمد بشير خلال كونكو نيجا دف موين نتاني جي شيخ سكوني جوخ اي نيب بجوني جوم تيمير مات فاسان سا كينغا خامني ak njambaram ci yoon wi kin mënu ko nat muy mam cheikh bafal joxe bëgg joxe jooné ak juroom téwé yépp Cheikh Mamadou Moustapha ne ko gërëm naa la sant naa ndax man nga ko taam nga yéene ji waaye liggéeyu Serigne Touba ñëpp dañ ci am waaye Cheikh dafa sensé juróom-ñaar téeméer yi mu joxe ko suñu joxe téeméeri nit sëñ Manoumbe joxe téeméeri nit sëriñ Massamba joxe Cheikh Mamadou Moustapha mottali ko ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñu joxe leen ñu joxoon leen gëlëm juróom-ñaari at ñu liggéey ko ci ñaari at ak genn war kon loola yoon bi war nañ ci fàttaliku ngir xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa saa su ku bëggee ne Seex Ibrahima Faati waxoon Sëriñ Tuubaa du santaane mukk lu am te du ma sant mukk lu ma du def ndax jumaa ji Sëriñ Tuubaa da koo santaane bi mu koy santaane dafa woo Cheikh Ibrahima Faati def ko jëwriñ ji woo Sëriñ Masamba woo Sëriñ Masamba ak Cheikh Mahamadou Fadil wax leen neen dem leen ca carrière ba Cheikh Mouhamadou Moustapha ak suñu Balla Cor mu ne leen taxaw leen liggéey bi lépp lu ci war na ngeen ko def kon Serigne Touba ba mu ko santaanee rek moo tax ñu def ci jom def ci yitte ba liggéey bi àgg fi tey kon yoon wi war nañ cee gën a jàngat ne lépp loo xam ne song nañ ko te am ca Pastef ndax booba ca yooyu jamono kot waxuma la ab dërëm wala tànk waaye li ñuy wax suuf kenn mënu ko am kon Cheikh Mouhamadou Moustapha. jàmbaar la ci yoon yu joo xam ne kenn warut a fàtte jëfam ñi ko Sëriñ Tuubaa booleel woon itam ñëpp dañ ko nangu taxaw ko ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ñi ma yaakaar suñu borom dindi na ci ñoom sawaru mbañante moo tax wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ku ne sa morom gën la moolu gënal moo tax bi sëriñ bi ñu bisee Touba sëriñ Mbàkke bu sëlam njëkk wax mooy dafa wax ne da wax suñ Modou Moustapha ne ko Modou Moustapha taaw bu am ñeent fukki at dañu ko réer te jub tegu ci yoon kenn du ko doonoon bàyyi muy teew kon kooku la ko waroon def na ko ndax moom moom la sëriñ Touba santoon ne ko na xiblaat bi ji maam taxawaayam ci Cheikh Mouhamadou Moustapha àdduna sépp xam nañ ndax ca këru njaarim ga ba tubaab yi woote xamutuñ ku ñuy waxal ndax mënuñoo wax ak ñëpp te mënuñoo ñàkk ku ñuy waxal ku dox seen digg ak yoon wi bañ wootee sëñ Modou Moustapha woote ñëpp ñëw Cheikh Ibra yeex a ñëw sëñ Modou Moustapha yónnee woolu ko ba Cheikh Ibra accès dafa sumbi kaala gi ñëw ci Cheikh Modou Moustapha toog tubaab bi daal di wax ne la ma doon laaj jërs laaj lépp leer na ndax Cheikh bi mii ñu jàppoon moo war wutu sëñ bu doxalee ñi kon xam ne ne sëñ Modou Moustapha kon ñoom li leen waroon lépp def nañ ak ak Cheikh Ibrahima Fati nag moom mi nga xam ne moo doon a jëwriñu sëriñ bi fii ñu toog di béy te fi la woote wax ne képp koo xam ne rakkale ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne mbokk la ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne doom la ci sëriñ bi ña ca mag nañ képp koo xam ne ab taalibe la ña ca mag nañ ba ñëpp teew fii ci kër bu bayti bi ba muy ñëw ab baa baa buy dund la ñëw jox ko suñu wóor Moussa àddina ba ñëpp teewee tàmbalee waxtaan wi ci ay rakkam maam Cheikh Anta mu ne ko Cheikh maag yow nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ Tuubaa ndax ñu njabooru Sëñ Mbàkke Mor Anta Sali kat ab dëkk ab dëkk waaye xajuñ ci waxuñ xajuñ ci dëkk waxuma ab ab kër waxuma ab néeg kon nañ yaakaar nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ Tuubaa kon rakk yëpp dugg mbokk yi sëriñ mënumbe mu ne ko mënumbe demal liggéey bu liggéey bi sontoo nga indi ko fi nga ko daan di koo fekk nga jox ko kon loolu itam leer mu dikk ci taalibe yi Cheikh di seen jëwriñ mu ne ko Ibra la waneeru yoon ndax lëndëm bu gën a metti nga amoon kat amaan na ndax ba ñëpp gëlëm ya kat yaa leen gindi ci sëriñ bi lëndëm koo gën a métti nag amaan na ndax ki daa gis ba gisatu googu lëndëm moo gën a métti kon Ibra Fall waneenu yoon Cheikh Ibra waneenu yoon mu dikk rakk yi Cheikh Mamadou Fadil ak ko Mouhamadou Fadil yaag say rakk seen magangoo topp leen ci ginnaawam ñun njabooru suñu bàkk moo andi seen kër lu ñu am. topp suñ mag ñu ko may bu seen mag melut ne suñ mag nag seen mag ngeen bàyyi suñ mag ne ko ne suñ Modou Moussa Modou Moustapha say rakkam boobu nañ topp sa ginnaaw nga jiitu li am solo nag xëccoo yi dëkkee ki kër amul solo li am solo mooy fexe ba doy nit ñi boo doyee nit ñi foo nekk ñu fekk la kon ñoom taxawu nañ ko bu baax ndax loolu day histoire bu mat a fàttali bu mat a leer Cheikh Maodo Moustapha itam di jàmbaar ndax dafa wax ne bi fi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa ñaan yoon wi dafa def ñaari kuréel ñii ànd ak man ñii ne tekki di xool ba xam danaa bana danaa mën a demoon déet Cheikh Abdou Lahad Mbacké la ko wax da ko ne na nga farlu ci liggéey te nangoo liggéey ndax bima ma gisatu sëriñ bi kat mbooloo mi def def ñaari xaaj ñii ànd ak man ñii ne tekk di seetaan ba xam dinaa mën a déwam déet ma jël liggéey teg ko sama kanam weer wu ma dégg weer dugg ma ma fexe ba xitti am sàq ba ma ca saxee ab diir nag ñëpp di seetaan ñëpp mujj xam ne kii kat ku ko topp mu dem ku ko topp mu dem ñëpp wër ba di ko topp sama ginnaaw moo ne nag bu tolloo lépp nag sàq yu fi sëriñ bi bàyyi fukki sàq yoo wàññi juróom-ñeent ba ko fukkeel maa ko jëf boo demee ci kaamil yi di wàññi fukki kaamil yoo wàññi ba ko fukkeel maa ko bind néegi defar naay néeg kon lu taalibe bi def def naa ko ba noppi sëñ bi mu kon nag lu taalibe bi di am war naa ko moo tax lu fi sëriñ Tuubaa fas naa ci fas naa ci teg sama loxo kon ci fulla ak njàmbaar akum xel ci la ko def liggéeyu jumaa ji nag lu kiimaane di ci am ndax ni ko suñ boon defalem xel ni la ko defale baatin ndax ki ko jox liggéey bi kat du ko seetaan ndax sëriñ Mbàkke bu sa neewoon na ne ki la dénk loxoom ak i bu si jug loolu ndénkaan jafewut bi signé contrat ak ki ñuy wax tëlëri ñëpp dégg na histoire bi te dem France nangootu dir si liggéey bi yàgg sëñ Maodo Moussa indi la contrat bi wax ak beneen tubaab te léegi porte ko pelante ba mu ko pelantee ñu di ko woo ay yoon yoon di renvoyé dossier bi lu bari ba ca mujj ba rek ñu woo ko Kaolack moo ànd ak way juru wa tedd ba sëriñ Gaawaan ak sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Modou Moustapha jug na fees dell sëriñ Touba ba mu duggee ca tubaab yi woolu ko ba mu dikk dafa dugg rek summi kaala gi sëñ Modou Moustapha Fall daal yuuxu ba mu agsee tubaab yi ne ko lay juñ la dara lu weesu dañu bëgg xam ba xam danga fayam doo fay sëñ Modou Moussa jël loxo bi dóor ko ci taabal ji ne ko ne ko duma duma fay mukk li ma bëgg xam mooy bu fekkee nguur tubaab nguuru France damaa bëgg a daan naa ko xam tubaab bi ne kon man ngaa dem loo gis xamante ma na bi mu génnee am ku ne bu ma soñoon da nga fay ndax xamoo tubaab ndax tubaab baaxut te nii ñu la waxee de xamal lañ sa kaw la jëm si te gis nga fi njaare sa baay kon nak fexel ba massa ñom te jema fay mo gën sëñ mo dou sa nak yow de xamu serigne touba ta xamu fi ma toll ne ko liggey bi de ne ko ay daana da tax góor deur ñaari tànkam ci kaw suuf ba kenn du ko mën a ne ko man ak sama ben tànk bi bu moo ko ci moko deure ci kaw suuf bu nguuru France gep dajale won sen carte nak sen doole bu ko daaneel duñ ko mën bu fekke ka ma daa far ànd naag man te sama ñaar tank la dir ci ko suuf kon wóor na ma lima bëgg dina ko suñ ma dum saa bàyyi ko fa fa rek geru 30 39 40 aksi si tëlëri ñu ray ko dossier ba jeex kon fofu won na fa xel ba fi mo koy jeexale nak mooy borom bis bi di sëriñ Touba dafa am benn tubaab ndax alxaqu ma shahidat bihi al-a'daa am noonu lim seer mooy dëgg ndax Cheikh Sahdou Abihi dafa seer dañ koo laaj ne ko kan mooy sëriñ Touba mu ne jaamu yàlla la boo xam ne dafa sonn ci ñaan boromam lépp ba suñ borom faye ko lépp tubaab bii nag mi ngi tudd Sarla Martel. di boroom xam-xam yi gën a màgg nguuru France ministre Coulani yebal ko ci Serigne Touba mu ñëw njaarim ba mu dikkee ñaan audience commandant Serigne bi ne ko nee ko amaguma sama ndigalu boroom ba ma ñetti fan mu ñëw ba mu dikkee toog sëriñ bi ne ko mu ne sëriñ bi damaa ñëw ngir waxtaan seeg yow sëriñ bi ne ko bismillah mu ne ko dama lay laaj. ndax xam naa ne li yàlla sàkke ci nit ku ñuul yaa ci ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko xaakasa mu ne ko man itam mboolem lu yàlla sàkk ci nit ku weex maa ci am ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko ak nit ku weex daal tàllal jëmmam kon sëriñ bi ko xam boppam la mu ne ko dama lay laaj loo xam ne damaa bëgg li may tontu lépp di dëgg sëriñ bi ne ko man duma wax mukk lu du dëgg mu ne ko mboolem yonente yi laa bëgg a xam seenu lim sëriñ bi na ko fàqakadul mooy téeméer junni ak ñaar fukk ak ñeent mu ne ko yonente yi yàlla wàcc ay téere ñoom ñaata la mu ne ko sëriñ bi ne ko juróom muy lim ba àgg ci yonente yàlla Moussa tubaab bi ne ko yonente yàlla Moussa du ab yonente sëriñ bi ne ko kàcc nga inter bi interprète bi daal diddi da ñemewu ko sëriñ bi baamtu ko ne ko waxaat ko ko ñemewu ko di dital siñ sëñ Masamba mu ne ko Masamba wax ko ne ko nee ko kàcce nga sëñ Masamba wax ko tubaab bi datti sëriñ bi ne ko fii ma toog de suñ borom ci kattan def na ma léegi ma yonent yàlla Moussa def la it ngay xaaroona mu ne ko waaye xaaroona boo ko Moussa alagee suñu borom teg na ko ci ay daan ndax yedd na ko ci mu ne ko man suñ borom fàddul na ma ay daan sëriñ bi na ko Masamba li gën a gàtt ñëw a làqu ci sama ginnaaw léegi nga weddiwaat ko léegi suñ borom mëdd la ci ko suuf tubaab bi daal daw loolu tubaab bee ko bind ci arsi kon sëriñ Tuubaa li ko suñ borom defal mosu ko defal kenn kon yàlla na ñu tàbbal ci add xaltu nafsi wa jamiha ahli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 na yawat ña daawote eh, ña daawaate eh, mustawa